son nañ ci combat te di gërëm di bëgg tamit waa wasaare ah wasaare làmb di leen suyaa bu baax a baax a baax di sant di képp kuy bëggee Baye euh, Mandiaye maa ngi suyaa démb ñu gis la euh, nga ñëw ànd ak waa ñetti mbaat ñu mobiliser topp sa gannaaw nga ne ma tey damay dal lu waraloon dal bi. waaw démb dañ ma yab boo xoolee ni ma daan def di teel teel di daw di ñëw di sax instant maa ngi supporter démb defuma loolu. damaa yóbbu sama baar toog xàll dal jàmm su ma juum ñett yoon laa dem supporter de yeneen yëpp ba may saraxe laa fa dem parce que bis bi loolu la laajoon laajul woon yëfi xale quoi parce que tamit nii ngay màgg bu la yeddul nga yedd sa bopp làmb tànk yaa ngi gën a dem war nga mën a màggal sa bopp quoi loolu ci yow lay njëkkee mm-hmm. te loolu noonu démb dama ko indaale ko su tamit boot na sama kot kenn du moom billaahi. gis naa bi ngay tuus saa boo tuusee ba daaneel bëgg a dem say supporter mu kale la ne la delluwaatal constat. day entraînement la ma ko waxee dama laa mujj du ay fecc du ay déedéet bii daan la supporter yi baal ba bëree ba pare nga wax ñoom noonu la ko dundee ak man billaahi. coach dafa bëggoon làmb ji sama kot bàcc maam Cheikh aw ma fayam roon ñu ngi koy ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram démb damaa boot moom dafa ma boot lu may bëri moo may wax defal ma dem toog a ma taxaw kenn du moom moo tax ay affaire diw ak diw ak diw ñu ngi si écurie bu mag yooyu amul sens démb feeñal ci làmb ji da ngay gëm sa bopp na rek waxoon naa ko na lan gudd ak njool amul sens si làmb yàllaay maye rek dangay mën li ngay def ñu làmb ñu ko mën bëriwul nag de. ñu mën làmb bëriwul ñu mën bëri quoi. bëriwul moo tax lay gudd ak njool di leen jaaxal en général njool yi dañuy daje ki nga xam munut wala ndaamali daje koo xamante ni moom mais munut. sim nga fu may waxee. Mhm. voilà affaire bi doon la des day day day njool moo xamante ni nii du xam fu mu koy jaay wala des fois njool dajeeg ndaama du xam fu mu koy. du xam merci affaire bi rek da mën li nga boo taxee ci géew nga am fulaak fayda def li nga war a def kase. mais ñu gis la combat bi bi nga koy waaj dafa mel ni da nga xawoon yokk poids. dama kaa yokkoon bu baax diis gann mais ba combat bi di jege si nag laa wàññi parce que ñoom seen entraînement yëpp mooy booy bi dafa dafa diis. boo dégloo open presse am ku wax rek waxi poids la ñuy wax waxi poids sim nga fu may waxee sama lekk. ëppoon ëppoon ëppoon nga nii. lu bari ëppoon naa lu bari sama lekk lépp dama koo wàññiwul. billaahi barke alxuraan ba am na koo xam dama wax naa ko damay wàññi sama poids bi sax mu ciy naa mu wàññi poids doo bàyyi ba sa combat bi jàmm mais man xam naa li tax ma bëgg ko wàññi xam naa ko lu taxoon nga bëggoon koo wàññi. Ah, parce que man am na loo xam arrangé ma. am na yenn diis yoo xamante ni waruma ko diis ci bi. parce que ñoom li ñu koy entraîné mooy mu gaaw xam nga. waa ñëw jéem a nax ak yooyu noonu. loolu dong lañ ko ci entraîné mais démb ku ñëw ci làmb ji boo ma xoolee xool ko da xam ne man la sama waay liggéey yamul sax. mais ci moom laa jógee léegi nee na da nga waxoon ne ku ëpp doole. ku ëpp sañ-sañ ku dàq xeex yàlla na yàlla may na mais bi ngeen jàppantee xam nga ne moo la ëpp doole. <laughs> wax na dëgg nag moom ëpp doole de waaw. waaw nangul naa ko. Bébé Bismi la ëpp ah, maa ngi koy nuyu di ko ñaanal li mu bëgg ci carrière am yàlla na ko yàlla defal parce que borom baax la mais wax na dëgg nag moom moo ëpp doole. bi mhm. sant ngeen moo ëpp doole. lu bari. mais Baye Mandiaye mais wax Bismi. non moom moo ëpp doole dumul moo la ko wax. moo ma ko wax kay. waaw man nangul ko ko kay. ba pare yóbbante moo ngi lay féliciter encore. ma koy delloo moom di ko bégee di ko ñaanal jàmm moom mbari la damaa may chance. yaa ngi dégg parce que waxoon nag ci commencement bi ba ñuy njëkk a daje palaaso Fallou ma ne ko man moom xale laa te mbër du ma diriger. dugal YouTube yow sama premier combat ba ba ba huitième bii bu fekkee mus nga gis mbër diriger ma boo ñëwaatee fii wax ma ko amul ko man boo may rey sax damay ñëw. noonu laa mel quoi maam loolu sama dama daan xëy fii laa daan nekk di xeex suba ba ngoon. billaay dama daan xeex rek suba ba ngoon néew ma la doo ma nooku nag non mais boo may nooku day fekk ànduma ak sama sago. day fekk Baye Mandiaye ñëwul quoi sim nga fu may waxee. Mhm. ah mais man ma ànd ak sama sago rek dañuy xeex rek da nga dóor ma fayu te boo ma dóoree benn ma dóor la junni pour lan du ay ay góor la. ah wax naa ko sax avant lamb bi nee naa Fatma Dia nekk xanaa nekkul ay góor ñooy ñooy ñooy ñooy ta ñooy daje ci géew bi arbitre siffle la génn seen diggante na leen xeex leen wala. mais léegi ñu ñëw ci combat bi ah. ñu gis arbitre bi siffle day dagg lang gi dem ba ci côté saako ba nga fekk ko fa bu daggee lang dem ba saako ba nga fekk ko fa dem ba benn moment sax nga naan ko ñëwaatal ci biir géew bi lu waral loolu. waaw léegi kon yow wax xam moom li mu ne moom ëpp doole yow tontu nga wax ji a ah, wax daa jooy ñu ne ko foo jooyee mu ne damay xaar ba wax ma jot quoi yee dafa jot nii yow ki lay dàq ngay daw mu lay woon na la kaay. non nee na mais nee na waa nee na euh, dàquloo ko mais tegtal la woon te moom luñ ko tegtal ci làmb da koy def. nax na ko kay waaw dama ne dama ne tegtal am man kon man su ma neexoon ma def lu ma neex suñu waxee man leen tegtal daa indi ma indi de mhm. moom làmb ji si gàllaaj la ko tegoon soo bëggee dégg dëgg te fi nikku ku ne da am ay mbokk. mais est-ce li ko sëf moo bëri tam. yan yow waa ci entre bi. lu ma si ci wàllu mystique laa wax ci wàllu mystique. man mystique billaay wala xaw ma sama benn rek bu dëkk sama gaale kooku mooy indi rek na ma am. ma sangu jeex na. mais lim lay andil bu baaxul woon doo ko jël. Hmm? lim lay andil su baaxul waaw moom laa wax boo ko wóolu woon doo ko waa am sangul sangu bu fekkee mën na téye nit wax ma sangu ma sangu loolu laa ci am papa sama rak jeex na. mais lu tax nga doon topp di ko sëqatal parce que nee na saa bu ngeen jàppante euh, da ngay daw bëre bi soo bu ngeen jàppante li ngay bëgg mooy dangeen ngeen di jàppante nga yor ko ci suuf mais xam ngeen ne su ngeen bëree euh, du sax sama moom ci bëre. waa léegi ah. benn da ngay wax tey benn ba arbitre bi sifflé kan moo dox ñëw. non man kay yooyu laa laaj yow mi nekkoon ci digg ah, géew moom laa lay expliqué ni arbitre ba mu sifflé. Mhm. damaa laal suuf rek dox ci kawam. Mhm. mu arrière ma topp ko mu arrière foofu sax def naa yëf fi xale tuuti damaa ñëw ah, jël naa ko foofu mais entraînement moo tax moom sax mënu koo xam mais jël naa ko foofu ku bu dal ba damaa kaaw foofu mais moom xamu ci dara sim nga parce que tey nit bu liggéey même bu jëlee ko war na am résistance bu ko téye. foofu loolu laa dund ak moom léegi deuxième action ma attaqué waat ko mu dem ba si ginnaaw saako yi sam benn grand dund. Mhm. dund bu xam nga ko bu waalo. xam nga lu may bëri damay gëstu waay sax di xool suñu waa écrit parce que man naa ba suba du daan dund na ma nii demal ak moom si géew bi. parce que moom ñu muy bëreel ñëpp en général ci saaku bi voilà ma dox ci géew bi du yegg si ma taxaw arbitre bi naan ba bi tamit nañ bàyyi loolu quoi ñoom seen kanam ki maa ngi koy topp di ko topp muy dem. xaa damay dafa ma bëgg ma seey jàpp ko wala ma daw bërët ci moom làmb du loolu. parce que nee na bi ngeen dawee jàppante bi nga ko plaqué bi nga ko plaqué. léegi waaw waaw léegi ah. Mhm. ba ma ko xëccee jigéen bu dee am nga seetlu am na boo xam ne dama ko wan ginnaaw sax di dox di dem mu taxaw fi mu taxaw yéen a ngi woon ci làmb ji am na boo xam dama ka dama mujj obligé wan ko ginnaaw di dox di dem mu taxaw parce que man xam naa ni kii bañ jàppante première action bi la xam ne non tey am naa booy bu saf-saaf parce que man tëdduma nii di nalaw man gëj naa nalaw normal ba léegi dama dem ko tàmm parce que quatre heures laay am entraînement léegi dama dem ba quatre heures bu jotee nii samay nalaw day dagg damay mujj obligé yeewu nekk ci whatsapp bi samay nalaw day dagg parce que dama koo tàmm dem entraînement combat bi dama see entraînement ba feebar sama dernière émission maa ngi naan ku ba feebar rek yal na la yàlla may ndam damaa feebar te noonu laay continuer di dem donc écrire ba fa laay kontaan quoi gars yi mujj obligé dem ay comprimés ay garab jox ma ko foofu may naan billaay wallaahi. mais mais mais su ma ñëwaatee su ma ñëwaatee ci combat bi nee na moment bi nga ko plaqué moment bi nga ko plaqué xam ne bi Bis dafa liggéey ci la sa làmb yàqu nga téye sa bopp. léegi dama ko naax. Mhm. dégg nga ma dama koo naax mu jàpp sama ngemb fii. bu dee yow xam nga làmb. non nee na ma jàppuma ci ngembam nee na ma ci kiwisaab laa jàpp te kiwisaab du ci jàpp di tànn ak action loolu kay moo ma ko wax. waaw léegi non non voilà moom moom ah, moom sax jàpp na sama kiwisaab mais man moom man moom loxoom dong laa jàpp. mais moom nee na jox na ah, ak ni mu toll yow gis nga bee bismillah rosam. di mhm. gis nga ni mu bu ma jàppoon dafa waroon a wane quoi. yaa ngi dégg mais man yooyu dawul sama yaram. yow am na su ma juumul yaa ngi koy wax ci interview bi xaw ma kan moo koy wax naan Baye Mandiaye lii jaaxul ko parce que day bëre simple day bëre ku ne boo jàngatee xam ne man dama am ndoxtu bëre. billaahi ba ma ko naaxee sama ngemb la jàpp du man maay bëre man la jàpp de. sama ngemb la jàpp man naax ko plaqué wu ma ko fële de ci biir laa ko palaake boo seetloo action dama ko plaqué ci biir ci biir mu mu topp ma ma bàyyi naaxal ko taxaw jox ko fa ay coup jox ko fa ay coup mu arrière génn parce que man ku yi ma ko door yëpp yëpp a dal moom dóoruma benn coup ak ni mu toll. man benn coup laa jël mooy premier bi ba ma ko songee mu def nii dóor ay uppercut benn dër uppercut bu mu njëkkoon doo dalu ma beneen bi moo ma dal te bu doon tapet laa boo beneen bi dal su ma ñëwaatee damay taxaw. waaw ko yéen a ngi ci làmb ji. boobu dal na ma ma xam ne man ku dal na ma. yaa ngi dégg moom sax foofu mi ngi commencé naagu naan supporter nii dama lay nit. dama parce que doomu gaynde moom kenn du ko def siiñ quoi boo ko bëggee doo dóor ko rek dem ñibbi. mais boo ko dooree na ko suba dinaa ñëwaat dina la préparer. mais dama gis mu am quatre avertissement nga taxaw téye sa bopp mu taxaw téye boppam pendant une minute wala deux minutes ngeen taxaw sa ngi taxaw di xoolante ba amateur yi sax na lan moo xew. yow wax nga wax ji de daa am quatre avertissement les quatre avertissement ñaata ñaataa si des du benn. walla du ma ngaax dafa am ñu ma boot de am ñu top sama ginnaaw gis nga li ma indi si stade bi gis nga ma nekk xale bu ndaw mu magee mu lu bari bëreeg samay ay mag samay ay mag dong la bari géejuwaay ñëpp mu am si ñoom ndam yàllaa ko dogal ma nekk man seen rakk ñëw non dafa war a pare ci géejuwaay te démb ba ñu bëree moom xam na ko dégg nga man boo xoolee ba combat taxee nekk ma naan ko géejawaay géejawaay déedéet ci man moom rek laay wax mais ba mu bëreeg man bu demee seen kër dina xam ni booy bi samp yoo bu ndaw dëgg la. dina xam ne booy bii nii. champion bu ndaw dëgg la xam la mooy problème bi mooy gis nga làmb da gëm sa bopp entraîner gëm sa bopp teel a yeewu teel a tëdd li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa ay morom làmb quoi même pas làmb ci àdduna lépp li nga sa bopp yéene ko say morom mais gis nga moo wax la leen soo nee man rek maa war ay millions ke warul am kooku mooy am yow doo am suñ borom moo tëdd na mais boo nee tey ke yàlla na ma njëkk a am yow yaa koy njëkk am ci gëm-gëm laay wax àdduna amul solo ñëpp nañ defar rafetal xam nga fu ma waxee li nga yéene sa sa bopp nga yéene ko sa morom parce que li yëpp day jeex ay làmb li yëpp day jeex mais man sama xol bu rafet ak ñaanu waaju ak ñaanu xale yu ndaw yi nii sama mafia bi may àndal moo tax xol bu ma bu ma amul su ma sotteeku su ma jëloon ndox donc sax xëpp ko sama yaram dem day mettre mais suñu borom damay suturaal. mais dafa ma dafa ne ma dafa ne ma boo gisee démb ni mu bëree dafa am blessure bi combat bi desee vingt jours mais bëggoon sauver bés bi bëggoon sauver bés bi moo tax mu ñëw bëre mais wóolu woon sax bëre ndax blessure bi mu am. ah loolu de yàgg nañ koo dégg loolu yàgg nañ ko dégg bu doon blessé maa ngi koy wax démb yaa ngi sama loxo bi xam ah, munul wàcc. gis nga ko munul wàcc de kon xanaa man man maa ko gën a deel tama man damaa feebar laa wax ak billaahi wallahi yàlla bu ma yendu tey. damaa feebar ba nii may wax ah, tey ma yeew damaa ne woon damay solu ji biteel boo xoolee man ak moom Bébé Bismi yàbbi na protest daam 60 fois man gisoo ma yàbbi ko tant que ron ko su di dindi ko ci man day taxaw fale ma ne ci géew bi di daw yéen nag yàgg ngeen ci làmb xam ngeen kan moo pare dama koy woo man naan ko kaa ñu bëre muy nekk foofu di di saale di def ay sëgg ak jàpp ndigg ak sa waay dëgg di jàpp ndigg di naan ndox di daw day daw man dàq ji naa ko sax day daw ma koy dàq ji mais sax su ma yeggee ci moom damay fexe na doxaat ci kawam parce que moom bokkuñu Bébé Bismi day xaar benn combat arène mu ngemboo seen kër dem uti gàllaaj na dama lay liggéey ba nga yàqu mu ñëw jéem laa daan man chaque jour damay jël sama saak ñëpp di nelaw ma yeewu quatre heures du matin dem jël ju orel bi dem àll bu gën a sori fa laa xamante kii taxaw nii làmb simple gis nga ma àll ba la jógee ñëw parce que xam na ni borom jom laa yàgg damay jël ay nag kii moom ma koy takkal tegal ma ko ci seret may indi ko fii suñu kër nga fu ma waxee. te du ma fii dinaa la war de. waa koñ bi ni naan la mbër nga eh, nga naan nii ah su am 60 gel joobee ma noon de. waxi olof laa la wax nag. làmb laa gëm quoi. tey jii damaa doon dem entraînement tey. booy ñoo mën a doo dem te est ce que boo paree sax du ma dem. billaahi. yaa ngi xalaat boo paree dem entraînement. barki Serigne Touba billaahi wallaahi damay dem. mais ganaa jógee ngi ci Bébé Bismi fi mu toll nii kan moo ci des. ma kenn man moom fu mu gën a méttee rek nañ ma jox ama mbëri dañuy taamu man ma kenn jëluma fi benn paa laa mu jànk rek xale bu ndaw laa lu metti rek parce que damay xeex damay bëri man bañu ma bët bëñ bu deñ bañu bët bu pat man lépp laay def parce que maa yee ragalu ma si dara lu ma maanaam doomu aadama doomu aadama lu mu ragalul pour def ma ko rek man ragaluma loolu pour def la ko. yow démb démb neewoon naa la Bébé Bismi su ma juumul maa ngi koy wax bu arbitre sifflé dina mel ni man maa ko sut hmm? man xale laa yaa ngi dégg man xale bu ndaw laa man heure bii nii buñ ko tegoon ci yoon waroon na fekk ñaam ba vie Baye Mandiaye mi ngi waajal dugg ci làmb ci yoon quoi mais bu may dugg ci làmb koñ bi dafa wéetoon voilà moom xam nga ñu bëgg am mbër quoi ñu fi nekkoon nag dëgg ay mbër lañ ñëpp mais dañ ko buggoon a am quoi ba pare xam nga xale ak ay xale ñoo mën a ànd booy amuñu woon ku leen mën a bégal ci ma sacrifié sama life ba may bëri sama premier commande kii taxaw mi ngi may ree sax ba ñu jugee naa ma pour man xamoo lii pour man bëre simple rek nga xam jàppante. daa commencé ma woon sax ay mbapatu koñ ñi laay bëre billahi wallahi boobu ba tey nag ba mu si jugee ba tey yàgg na mooy yëgil la de bi ba tey ma sama tànk yow wax ma ban làmb laa mus a ñëw ma simmeeku nga ne Baye ma liggéeyul. waaw xam nga doomu aadama looko bañ-bañ da nga koy nangul ban làmb laa mus a ñëw rek simmeeku nga ne kii liggéey wala ban làmb laa mus a ñëw wane ñàkk fayda amul. bakkee alxuraan man damay entraînement chaque jour matin soir fa ma fekk su ma nekkul sama ndeg maa fii fii nii toog. jàpp suma ñaam parce que yàqamtuwuma sama avenir dara parce que gëm naa lu doomu aadama mën a am rek liggéey di ko ko may rek. yee man bu man bu dee liggéey moo koy maye man dinaa am loolu laa gëm waaw. boo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax nga sant gërëm. waaw di sant yàlla julli di sant nag waa guy gi moom sa réew gunaas xam nga njett mbaar jeddo jàmbaar darkase bi ñëpp ñëw ñëpp ñëpp xam ñoom Abdou bu darkase bu kii. moom séeréer ah Ogo joo xam nga bu bu bu bu waaw yëpp ku lim da ngay jum di bëggee sama Baye Fall du ma si tudd tur kenn waaw Baye yi ñii moom bu dul làmb sax ma ñoom ñooy nekk quoi dépassé na niveau bu ma leen santé xam nga di bëggee tamit njool victoire bii nii njool laa may Malick di bëggee jibi amoo xam nga sam barak kenn du moom si man papa kooku moom gaan xam nga ñoo bokk gàlle mais nice quoi mun maa wax ci moom. di bëgge bogis sama moxaa sinap xam nga di bëgge maam bu bu jugee ba dëkk ba ñëw ak siidi xam nga di bëgge sama taaw yaay Abdou mbay maa ngi koy bëgge bu baax a baax di bëgge sama yaay di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan wér gu yaram di bëgge bayal xam nga Thierno mbay ak Jibi Sarr dellu na Fuuta léegi léegi laa muj moo ko indi woon di bëgge tamit sëtu gaynde bi may yee si fajar chaque jour ñuy dem entraînement xam nga di ñaan tamit lenn rek mooy waa koñ bi ñu jàpp gën a jàppalante comme ni ma koy waxee boo yi ngay gis ni tay la sax ñu toog fi nii de mais bu subaa ñoom ñëppay liggéey ñi ngay gis nii yëpp billaahi bëri naa parce que sama ndam mooy seen ndam dañ maa bëgg te yàlla tax ñooy nekk chaque jour mais suba gi ginnaaw suba da ngay gis boo yëpp ñu si dawal seret dañuy dem dawal lu seret ñu ciy liggéey da ngay dañuy dem liggéey ñu fi taxaw yëpp kenn du fi baadoole kenn du fi rien ñi ñëpp ay jàmbaar lañ billaahi chaque jour moo xoon ak samay bàyyi di dëkkal gox bee nii fuñ dëkkul ay bandi salte dëkkuñu fi billaay wallaay ay ay jàmbaar quoi ñoo fi dëkk ñoo am suba ba ngoon dañuy jaayante lu ñu am ñoo indi ko seen ay waajur billaay wallaay ñoo ñoo fi dëkk Modou Bara tamit maa ngi koy sant ah, gis naa taxawaay abdu salaam di ko ñaanal lu mu bëgg ci mairie bi moo xam yàlla na ko yàlla suñu borom defal waaw ah, di wax par parcelle nag man du ma seen duma seen noonu quoi yaa ngi dégg làmb moo ñuy boole rek sim nga làmb moo ñuy boole ñuy bëre sim nga mais duma ma seen noonu eh, di wax nag Modou Lo na ñoo ñu bëri moom fa dese moom fa jëlaat kenn te xam naa moom bu ñu bëree ñu bàyyi ñu tam. Modou Lo men am ñoo tolloo. d' accord Modou Lo sut nag Modou Lo Modou Lo moo la sut. man wax de Modou Lo mag sama baay. kon bu ñuy werante moom ma sut kay baax na. kooku daal bu ñu bëree moom ñu bàyyi àdduna. dañ xam ne nag gaynde dëgg laa. kon fi mu toll da nga wax ne parcelle Modou Lo moo la fa dese. moo fa dese kay. moo fa dese ñaata ñaata personne. ñaata personne. ñaata personne. ndax man man lii ci laa juddu yow. man mbapat ndam boo amee des fois des fois boo xawul kii sax war na dina la xaw a dof loo yooyu. mbapat mbapat saay saay saay man làmb yàllaa ko def sama deret bii de. aw ma papa yu mbër aw ma baayu mbër mais man mbër laa kii mooy koy maye. déggoo ma de bu ma duggee stade boo ma xoolee xam ne booy bii mbër la kii ci lépp ful la fayda. def lu ma war a def man mun naa fecc mun naa bëri am naa fulaay làmb ñeme naa entraînement yàlla may na ma ñu ma bëgg as tuut sim nga fu ma waxee taxawaaluwuma damay teel a yeewu teel a tëdd doo ci mbir ba ni Baye Mandiaye mooy xeex fee kaan ko at te mën naa ko def ndax tàppetuma mais dama am respect ci doomu aadama yi man bu ma lay nuyu sax damay mel ni ku la ragal ma wax la sama secret tey nanguwuma xam dara quoi ma def sama bopp doomu aadama moom xamul dara suma ma lay nuyu damay dama lay nuyu ba yaw boo muusul da naan kii dafa am lu muy sóor ci man ndax cër respect mais man nan laay juddoo fii am lu may ragal surtout ma dem ba tol nii am sama doole ah. ah waxal waay ragal mais cër booy sàqu sàqul doomu aadama kaay ruus ma mais koy sàqu ragal ma rek bu tolloo weeg yow doole ñeme la ragal ma amul sens. noonu la demee nag. ba ki alxuraan balaa nga ko war a wax beetal booy nga seet si dañ teral ba nga tiit ndax cër boobu moo ne si ñoom dal billaay wallaay dañ lay raamal booy bet si kenn rek seetiw bu lay nuyu du siggi da raamal respect boobu maanaam fi ñu dëkk nii suñu yaay moo ñoo ko def si ñun respect gëm sa bopp waaw di xamal tamit sa waay Fallou Ndiaye bu tëggatee làmb ku ci mel ni Baye Ma Ndiaye na dawal promo bi xam nga parce que Fallou Ndiaye tëggul mbër bu ma ëpp tëggul mbër bu ma ëpp fulla ak cër bi ma ko jox man joxuma ko benn promoteur mais man du ma mbëru mbojo mbojo xam nga ma waxee est ma mbëru mbojo mbojo man bu tëggatee làmb ji na si def lu ko war parce que promoteur yu may xëcco du jeex yow xam nga si dara promoteur yu may xëccoo du jeex mais promoteur bu ma woo rek damaa bëgg sa combat rek dama lay aju ndax Fallou Ndiaye mais nag produit bi nga yor bu la wanee ginnaaw rek ci ngay doo ko ma donte nag yoruma wërsëgam moom yorul sama wërsëg xam nga fi may waxee fii yàlla rek moo fi ne mais yow combat bi yow gis nga ban problème moo ci am amul xam nga. voilà moo tax dama koy lancé message bu bu tëggatee Baye Mandiaye na si def lu ko parce que ñi mu koy tëggal noonu di def seen i promo ñooñu yegguñu ma fii ci mbooloo ñaar bologu bee laa jënd jeexut stade bañ demee demewoon ci biir diggéen ñu ne lan daa manqué ko daa estaat ñëw nga dem gis nga ni ma ko duyee dama kaa duy ba mu fees dell gis nga ko yow gis nga li ma topp ci ay doomu aadama ah. léegi léegi ni bu fayoon micro bi rek buñ demaatee estaat mu fees dell. bàkke alxuraan tàggatoo ñu tëj dem. <laughs> waaye sant naa yàlla di bëggee sama meeru koñ yëpp jànk yeeg xale yu jigéen yi di bëggee sama tuut tànk yi sama booyu ndaw yi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu waa koñ bi yëpp aw ma seen fay. xam nga di bëgg tamit sama booy nekk kaso ah ñoom Tete Vieux Ale Amed Ndiaye xam nga Fallou Boy ñaa di bëgg Armand Ndiago bu tàng bi sim nga di bëgg ñi ne ci biir ñoom ñàkk saw jibi si ta sama fils sama fils di bëgg Ale li leen ñaanal yàlla suñu borom génne leen fa parce que nattu la rek ba nga juddoo rek la la yàlla di wax di nga jaar fii jaar fii nit munu koo daw man ba ma juddoo la ma yàlla wax da ngay doon mbër bu ñu amoon leneen lu gën làmb dañ koy dem def mais duñ fi ne di dóorante mais suñ borom moo ñu ko nattoo noonu lay nattoo doomu aadama nag na la boo juddoo force da ngay dugg fii munoo koo échec bu la waxoon suba suba da ngay dee dawal bay bëgg a dee suba nga dee parce que ba nga juddoo la quoi da boo xoolee ñu baax ñëpp jaar nañ fa di wax gars yi tamit ñu jàppale ma ci sama boo yooyu parce que tamit yaa def defoo boo ñu bàyyi la fa noonu cinq ans xaw ma la fa tamit xaw ma six ans parce que tey jii nii man su ma amoon doole bu leen fa génnee duñ fa def deux jours xam nga mais jàmbaar du wër di jooytu parce que ki nga wax sa soxla da lay xamal te du la fajal mais nag fii yàlla rek moo fi ne de yàlla suñ borom tudd na jour bu ñu war a ñibbisi bu yàgg jour bu jotee rek nga gis leen fi te yàlla nañ ci yàlla jàppale. ba boo yooyu noonu yëpp ñibbisi si jàmm ak salaam xam nga di liggéey am seen teraanga teral seen ay waajur mais bëggee tamit waa wasaare làmb yéen borom baax nga yow moom aw ma sax fay sa caméraman bi tamit gis nga bàyyi fàll la parce que nekkoo la fi di ma wax gaawal nangam sant bi dooy na xam nga lay bàyyi ak sa sago quoi nga wax dal jàmm fiiri am am na ñu doon dox émission bi da nga ko doo ko def ak sa xel mu dal mais gis nga gaay yi nu ñu mel bëgg naa leen di leen sant di leen gis ngeen nii lay demee ci Wassare Lamb di leen jox dig daje ak beneen yoon yeneen bër ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf